Enquête 221, l'information en temps réel, c'est ici et non par ailleurs. Enquête le chemin de l'information. Ah, yow Adji Sarr yow laay waxal tey Sénégal bu tàkkee na la leer ni yow yaa ko taal tey bépp bakkan bu fi dee wala mu rot fi na la leer ni yow Adji Sarr yow yaa rotal yow Adji tax nga tey ma rusa doon jigéen yow Adji lan moo la war a mën a tey nga mën a hypothéquer avenir u Sénégal ak avenir u Afrique président Sonko bi nga xam ni tey dafa wane dëgg taxaw temb ne day jàkkaarloo ñii nga xam ne lépp lu ñu dal ñoom ñoo ñu ko Adji Sarr en tant que jigéen xale bu ndaw am sa avenir ci sa kanam lan moo la war a mën a jaral tey ngay hypothéquer avenir Sénégal Adji man jigéen laa wante yow tax nga tey ma doon jigéen yow Adji bu fekkee ni tey am nga ay mbokk na la leer ni gàkkal nga sa askan yëpp yow Adji bu fekkee ni am nga doom wala ëllëg yaakaar nga am doom xamal ni sa doom googu wutal nga ko way bu dul fay yow Adji képp ku bokk bakkan ruus na ndax sa jëfu tey na la leer ni nag di nga bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim histoire bu triste bu Sénégal dinañ la ci boole tu es rentré tristement dans l'histoire aji te na la leer ni xale bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ñoo xam ne jaruñu ko ndax xaalis ndax lan ndax tey nga jaay sa ngor jigéenu Sénégal yëpp nga gàkkal leen yal nañu yàlla atte ak yow di leen wax rek ni président Ousmane Sonko du ku ñuy fawee président Ousmane Sonko du ku nga xam ne dañ koy bàyyi ñu màggal si noonu ñun patriotes dañoo taxaw temb te bu leen yëboo ngeen xam ne ngeen a jaar ci kaw président Ousmane Sonko kenn jaar suñu kaw li may daaneelee nag mooy lii jigéen la ñu utiliser xeex président Ousmane Sonko na leen leer ne ay jigéen ñoo koy xeex ñun ñoo koy xeex ñun waa jigéenu Pastef ba ngeen xam ni fii Sénégal rangooñu baadoo la dootu fi cimetière bu yow aji nag na la leer ni ëllëg dinañ la takk dugal la si sa bàmmeel te sa ay jëf kese moo la fay fekk lan nañu yàlla atte ak yow président Ousmane Sonko na la leer ni ñun patriotes yi tey lañ la gën a xam ni foo nekk dinañ la gunge combat boo nekk dinañ la ko gunge mu leer leen ni si vous enfermez président Ousmane Sonko des milliers et des milliers de Ousmane Sonko sont nés ici au Sénégal et partout en Afrique et cette ce vent de personne ne peut l'empêcher wasalaam foofu laay